asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, tey nag damay commencer pour wax leen tuuti ci sama parcours ah, di leen wax ni man Sénégal laa juddoo Sénégal laa màggee fii laa jàngee ah, ba bi may am sama maîtrise DEA ci laa soog a dem bitim réew dem jàngi bi ma jàngee ba pare ci laa intégré le système international notamment les Nations Unies jaar nag ci agence yu bari ñu bari PNUD lañ ma gën a xamee mais avant may yegg jaar naa ci ñaar ñetti agence yoo xam ne système mu Nations Unies la ah, di liggéey ci ay problématiques yu yu yu baree baree bari ah loolu nag euh, nekk na loo xam ne parcours bu am solo la et ça m'a permis de visiter lu continent de travailler un peu partout en Afrique euh, de l'Ouest liggéey naa fii ci pratiquement réew Afrique de l'Ouest yëpp liggéey en Afrique australe euh, nekkoon Johannesburg doon couvrir tous les pays de l'Afrique australe liggéey en Afrique de l'Est à partir du Kenya couvrir tous les pays de la Corne de l'Afrique mais aussi liggéey bu bëree bëri ci Afrique centrale euh, fi nga xam ni euh, fa laa mujjee woon nekk comme représentant résident du PNUD au Cameroun euh, jaar aussi Togo jaar ci réew yu bëree bëri pour liggéey ci problématique gu développement di wax rek ni problème yi nga xam ne moom la Sénégal jànkonteel tey man dama ci liggéey déjà ci lu baree bari ci ay réew yu baree bari ay réew yu gën a jafe Sénégal d'ailleurs euh, dem foofu dajeeg seen chef d'État dajeeg seen ay gouvernement seen société civile seen secteur privé pour jàppale leen ñu saafara problème yi nga xam ne moom la seen réew am ah yàlla def nag ni euh, yooyu réew yoo xam ne liggéey nañ fa yàlla def na réew yooyu ci li ñu doon liggéey am nañ ci avancement bu baax a baax a baax mais aussi di wax ne liggéey naa lu bari sur Euh, anticipation de crises wala gestion des crises notamment boo demee dans le bassin du lac Tchad notamment dans le Sahel mais liggéey aussi ci les problématiques euh, euh, qui touchent notre environnement les changement climatiques l'accès à l'énergie wax naa ci lu bare bare loolu nag bi ñu liggéeyee lu mel noonu Sénégal soxla ñu di suñu réew ah ñu jàpp ne war nañu mën a dugal suñu loxo ci ni ñuy di tabaxee Sénégal ah, bi ma ñëwee ak léegi yàlla def na ma d' abord dajeeg sunu diaspora bi ma di leen remercier di leen félicité mais surtout di leen encourager ci seen taxawaay parce que xam naa seen bëgg bëgg réew mi euh, bi ñu demee en France dem nañ en Belgique rencontrer sunu mbokk yi nga xam ne dañuy dund foofu nekk ci diaspora bi pour saafonte ak ñoom pour xam effectivement lan mooy seen ay problème problème yi ñu wax ñu ci lu baree baree bari seen insertion professionnelle euh, foofu noonu mais surtout euh, li nga xam ne moom la ñu soxla pour mën a dund foofu dignement mais surtout aussi waxtaan nañ lu bëree bëri ci taxawaay bi nga xam ni gouvernement du Sénégal à travers les ambassades à travers les consulats ni ñu war a jàppale sunu mbokk yi nekk foofu les l'étranger pour nga xam ne du ñu am benn difficulté yooyu it nekk na ay yu bëree bari yoo xam ne waxtaan nañ ci ak waa diaspora bi ah, bi ñu jógee foofu nag depuis deux mois ñu ngi dajee ak sunu mbokk waa Sénégal ah, amul fu ñu demul ah, ci biir réew mi pour dajeek sénégalais yi ak sénégalaises yi mag ñi dajeeg ndaw ñi mais dajeeg aussi ak mbokku Sénégal yi nga xam ne dañuy dund ak laago mooy les personnes vivant avec handicap daje ak transporteurs yi daje ak mareyeurs yi daje ak artisans yi dajeeg pàcc yëpp yoo xam ne Sénégal euh, am nañ ci rôle bu am solo bu ñuy jouer dajeeg baykat yi dajeeg nappkat yi wax naa ko euh, donc pour saafonte ak ñoom pour xool lan mooy problème yi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi ah problème yi nag bari na boo demee à l'intérieur du pays li la population yi di wax déjà problème mu enclavement bu sérieux boo xam ne am nañ ko ci réew mi ah am na ñoo xam ne dañuy jàpp sax ni ñoom daanaka bokkuñu ci Sénégal parce que kenn nemmeeku leen parce que kenn taxawul ci seen ay problème boo demee ci biir réew mi ah mbokk yi di jàmbat jàmbat bu tar ci mar boo xam ne mar nañ ko parce que amuñu ndox mu ñu naan foo dem daanaka loolu daañu la ko wax boo demee ci biir réew mi mbokk yi di jàmbat jàmbat yu tar ci xiif boo xam ni xiif nañ ko parce que pour ñu dajale wa ba am loo xam ne mën nañ ci dund dund gu tey wala dund goo xam ne dina leen amal njariñ ñoom ak seen njaboot daanaka nekk na problème boo demee ci biir réew mi ah waa waa réew mi dañ lay jàmbat njàng mi éducation bi nga xam ne jàpp nañ ne dafa yàqu ba seeni doom niñ leen waroon taxawoo pour ñu jàng jàng bu tey jàng bu baax pour mën a tekki dara ëllëg a ah, loolu nekk na jafe-jafe boo demee ci biir réew mi ñu wax la problème mu faju ku bëgg ku feebar bëgg faju mu nekk difficulté mu nekk ay tolof-tolof yoo xam ne di nga jànkoonteeg moom te loolu du rek en milieu rural même aussi en milieu urbain gis nañ ni nit ñi sonn nañu pour fa dañuy sonn pour faju ma jàpp nag ni réew réew mi pour mu baax il faut que service sociaux yooyu nga xam ne moom la sunu mbokk yi soxla ah mën ñu mën ci taxaw ba nga xam ne daañu ko daañu ko saafara bu baax a baax lijjanti ko ba nga xam ne nit ñi ak foo mën a nekk boo bëggee faju di nga faju foo mën a nekk dinga nañ la andil ndox boo xam ne di bu tey la boo xam ne di nga ko mën a jëriñoo foo mën a nekk di nga mën a am say activité génératrice de revenu ba nga xam ne li ngay yittewoo pour dund ah, muy ci mbay mi muy ci napp gi muy ci càmm gi te yooyu dinaa ci ñëwaat ci épisode yii di ñëw pour wax leen li nga xam ne loolu la fas yéene euh, taxaw ba mbay mi baaxaat napp gi baaxaat càmm gi baaxaat euh, ak yeneen ak yeneen éducation bi aussi nu ñu koy sàmmee ba mu baax donc pour wax ne yii daal nekk na ay problème yu méttee méttee métti yoo xam ne sunu mbokk waa Sénégal fépp ci réew mi euh, ñu ngi koy jooy ah ñun nag fii ci PUR Euh, ak sunu programme bu am solo boo xam ni ñu ngi koy bëgg a présenter moo tax ma jàkkaarloo ko yéen tey pour présenter leen programme boobu programme bi nag ñun ñu ngi ko tëggee nit ak naataange parce que dañu jàpp ne Sénégal développement bi fi am depuis indépendance ba léegi dafa teg nit de côté mais concentré wu ci infrastructure concentré wu ci économie boo xam ne jàpp nañ ne économie boobu centré wul wala boog teguñu ko ci besoin yi nga xam ne moom la sénégalais yi am moom la nit ñi am donc ma jàpp ne loolu lu am solo la parce que balaa réew mi di baax il faut que nit ñi euh, nekk ay ñoo xam ne dinañ am taxawaay boo xam ne moom la ñu bëgg pour tabax réew mi ah loolu nag ku ko wax di nga wax li nga xam ne moom la ñu soxla mooy valeur ci nit d'ailleurs ñun suñu parti xam ngeen ni euh, dañ koy woowee le parti des valeur parce que loolu moo am solo bala ngay tabax réew da ngay tabax nit ba pare moom la ñuy wax le capital humain nga xam ne nit ki dina am mentalité bu tax mu xam lan mooy responsabilité lan mooy identité en tant que sénégalais ban taxawaay la war a taxaw ba nga xam ni li ñu yaakaar ci moom pour mu taxawee ko réew mi loolu dina ci dina ci sawar dina ko mën a def ak tout responsabilité ah ñun nag xam nañ bu baax li nit ñi di jooy li waa réew mi di jooy lu ci gën a bari bokk na ci jikko yu yàqu la crise des valeurs la crise des valeur au niveau de nos sociétés la crise des valeurs au niveau de notre de nos de notre même de notre croyance la crise des valeurs religieuses ma jàpp ne yooyu war nañ ci taxaw mais bi ci ëpp solo wala bokk bi nga xam ne moo gën a naqari ñëpp tey mooy la crise des valeur républicain te yooyu ma jàpp ne ay fondamentaux la yoo xam ne pour que réew mi baax pour que réew mi jàkk il faut que valeur yooyu crise de valeurs boobu ñu mën ko mën a jàkkaarlook moom saafara ko pour réew mi mën a baax donc naataange bi soog a ñëw te booy wax naataange mooy vraiment dundinu nit ñi euh, fexe ba croissance bi nga xam ne dañ koy wax ci sunu économie muy croissance boo xam ne dafa inclusive ñëpp ci bokk mais di aussi li gën a am solo mooy équité territoriale bi nga xam ne moom la ñu soxla ci réew mi Sénégal yemul rek ci benn pàcc lépp loo xam ne dafa war a nekk koom-koom dafa war a nekk naataange dafa war a nekk loo xam ne sénégalais yépp ñoo ciy profité muy sénégalais yi ci taax yi muy sénégalais yi ci kaw gi ñépp a war a profité ci naataange boobu ah ñun nag incha allah ci sunu programme li nga xam ne jàpp nañ ne lii mooy pilier sunu économie moom li nga xam ne moom moo war a tax réew mi am naa tànge te ñu xam ko te kenn liggéeyu ci ñun incha allah daañu ci liggéey donc yooyu daal nekk na piliers yi nga xam ne mooy sunu programme ci lañ koy tënk ah bëgg nag fii ak fan yii di ñëw incha allah ma génne benn ci piliers yooyu nga xam ne moom la ñu am waxtaan ci ak yéen pour ngeen gën a xam li nga xam ne mooy sunu taxawaay li nga xam ne moom la projet de société bi nga xam ne moom la ñuy présenter sénégalais yépp Euh, ñu bëgg nag ànd ak yéen liggéey loolu ñu ànd ak yéen tabax Sénégal boo xam ne ku ne di nga ci gis sa bopp ku nekk di nga ci dugal sa loxo gëmuma rek ne gouvernement ak président de la république ñooy tabax réew mi dama gëm ne yéen da ngeen a bokk ci ñi nga xam ni ñoo war a taxaw pour réew mi jàkk donc di leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen jox surtout rendez ci fii ak ñaari fan pour wax leen lan mooy sunu vision Euh, pour Sénégal ci programme bi nga xam ne moom la ñu tëgg mais pour wax leen aussi changement bi nga xam ni moom la ñu bëgg a andi lan moo ko lal mooy li ñuy wax théorie de changement nan la ñu koy defee parce que xam nga doo yeewu rek trans defar euh, transformé doo yeewu rek andi impact impact impact boobu ak transformation boobu dafa am noo koy théoriser ba nga xam ne di nga ci mën a yegg muy lu leer ci bopp waa Sénégal ba ñu xam ne bu ñu la joxee réew mi fii ak fii ak fii fa ngay jaar pour andi impact ak transformation boobu nga xam ne moom la ñu soxla donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan ci daje yi nga xam ne dinañ ko daje man ak yéen ah di leen wax na bu ngeen amee feedback ci li nga xam ne ñu ngi koy waxtaan ak yéen bu leen hésiter utiliser leen suñu plateforme yëpp muy Facebook muy X muy euh, yeneen plateforme yi nga xam ne yëpp am nañ ko pour jox ñu seen contribution seen feedback ci li nga xam ne loolu lañ leen di proposer asalaamaaleykum wa rahmatullah